asalaamualeykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mourid Retail Holding SAS seen supermarché bi nga xamante ni moo jóg taxaw tem indi leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu ay produits waaw rawatina produit yu bàyyeekoo fii si sunu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mourid ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ay ayib si askan wi ndaxte bokk na si seen ëmm seen i taxawaay di joxe xëy waaw seen champ si mboole mboolem gox yu fasantiku am na nañu seen champ daaru marnaan seen champ madiana seen champ daaru xudus seen champ nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si ndaamaatu bokk na si seen ëmm seen taxawaay lu tollook fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itte aussi ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fi rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 29 29 ak seen chandal su gënul du yées saana ilaahi bil munaajihati yéen mbokk yi Africa Tuile Caro ñëw na ci réewub senegal nekk fee ca Suprême extension villa numéro 264 ci wetu rond point di spécialiste ci bépp xeetu tuile boole ci tamit caro di représentant exclusif bu industrie Koto Posagno nekk feete Italie di jaay ak ay tuiles yu am lool qualité baax lool ci seen kër di leen defal fourniture ak éventuellement livraison ci fépp fu ngeen dëkk ci biir Sénégal Africa Tuiles ak Caro tamit am na personnel bu xereñ lool nekk seen disposition 24 heures ak 24 Africa Tuiles ak Caro ma nga nekk ca Parcelles Assainies Soprim extension 50 bala nga yegg case ba képp ngi nga xam ne nag dafa bëgg jokkoo ak Africa Tuiles ak Caro na jël ni xeetu numéro téléphone yi mooy 77 510 81 52 wala 33 site web ba di africa tiret tuile ak africa tuile ak karo ci biir réew mi seen coono jeex na ci wàllu tuile ak karo shukran lakum shukran lakum sunu ñu baax ki fi daan yare dinu wan di yoon a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi alladi xalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy teewlu fii ci seen seen Rafaahi TV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen dalalati jàmm seen émission bi ngeen baaxoo am sawtul xaq kàddu dëgg ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel mbokk yi tey dañuy ñëwati ci xew-xewu jamono boo xam ne daanaka lu ëpp weer a ngi nii mu lëmbi Sénégal waaye ñu war cee fi jàngat nag yu gàtt gàtt incha allahu taala balaa booba dañuy dem dellu ci njàngaleem yonent bi jukki ci tuuti ay waat dellusiwaat ci mbir mi ni mu demee mbokk yi yonent bi dafa mase tiim gone goo xam ni ay atam bu matee fukk du ko weesu lu bari wala ci lay toll dal kaay ma jàngal la ay baat xale bu toll ci fukki at mbaa mu weesu ko tuuti yonent bi ne ko kaay ma jàngal la ay baat waat yam ko doon jàngal bokk na ci ne ko nanga nga sàmm yàlla yàlla sa borom wa taala sàmm la waaye del fàttaliku yàlla te di ko gestu di ko bàyyi xel jamono ji nga nekkee ci jàmm jamono ji nga nekkee ci koom ak ci naataange del fàttaliku yàlla ci ay ndigalam del fàttaliku yàlla ci àqam yi mu yelloo ci yow waaye del fàttaliku yàlla ci jaam ñi boo bëggee yàlla sa boroom fàttaliku la boo nekkee ci tartara ki musiba del fàttaliku yàlla ci jamonoy koom boo bëggee yàlla di la fàttaliku ci jamonoy musiba ak xat-xataki naqar waaye mbokk yi yonent bi dem ba mujj yàgg ci waat yooyu mu ko doon jàngal ne yow sama doom xamal ni xamal ni àddina bépp bu ñu maase woon bëgg laa jariñ ak lu ma tuuti tuuti tuuti ñoom ñëpp mënuñ laa jariñ lu dul yàlla borom bi rëdd ne lii kat mooy sa wàll ci mbir bi allah xamal ni yow xale bi bu waa àddina bépp maase woon bëgg laa jariñ lañ la bëgg a jariñ lu mu tuuti tuuti mënta mm. ànd mënta ànd lu dul ne borom bi tabaraka wa taala da cee ànd da cee ànd wëlbatiku yit wax ko ne ko yow xale bi xamal ne waa àddina bépp jamono yépp bu fekkoon seeni jumtuwaay seeni moyen seeni énergie seeni man-man dañ koo tàggat ci bëgg laa lor mënuñ laa lor lu dul lu yàlla rëdd ci sa bi ne dana la dal mbokk yi waat yi mu ko jàngal yépp am solo waaye rawatina bii waat yi mbokk yi bi mu yegsee ci baat bi dafa mel ni lim ko bëgg a wax moom mooy bul jël sa mbir di ko wékk ci doomu aadama waaye wékk ko ci ki nga xamee ni moo moom doomu aadama yi bul jël sa mbir di ko wékku ci doomu aadama yi waaye wékku ko ci ki nga xamee ni moom moom moo leen moom moom li Sëriñ Tuubaa naan dama bàyyi doomu aadama yépp dem ci ki leen moom ba ma yeggee ca ki leen moom nag kooku jox ma leen ñoom jox ma la ne ci seeni loxo waaye jox ma leen ñoom allahu akbar loolu benn la ci waaye war nañoo mën a taxaw seetlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloog tout tànk di ko jàngal baat yu diisee nii te xóotu yi lu tax ndax kenn ku ci ne xam nañu ne gone mooy dooni mag après beneen nation bu bees wala beneen génération bu bees mooy judd te génération bu bees buy judd bu ne warees na koo mën a waajal ci ay xalaat ak ci gëm-gëm génération buy judd bu bees warees na koo mën a waajal ci ay xalaat ci gëm-gëm la ci jiitu nag moom mooy xamal ni boroom bi la fi sàkk indi la nga yegg si fii boroom boobu daf laa am lum la sant ci kaw suuf mooy nga jàmm ko muy benn ñaareel bi mooy borom boobu sàkk la indi la fi du la seetaan borom boobu yërmandeem ëpp na moos mu di la seetaan ngay tumuraanke yërmandeem ëpp na moos mu di la seetaan di la bàyyeek sa moroomu jaam ñi lu leen neex teg la allah loolu faaw ñu xam ko gis nga yàlla yërmandeem ëpp na mu bàyyeeg jaam ñi seeni moroomi jaam lu leen neex teg leen ko edet eh, abadan sunu boroom am na ay garde corps yoo xam ne ñoo koy gardeel jaamam yi te képp koo xamee ni jël nga say mbir wékku ko ci borom bi tabaraka wa taala jaamam yooyu danañ la garde ci lépp lu la yàq wala lépp lu la yàq loolu génération bu ne war na koy màggaale rawatina nga doon doomu jullit waaye it war nañoo mën a xam ne bépp génération walla bépp askan woo xam ne sa jëm kanam sa évolution maanaam sa jëm kanam da koo aj ci ay xarfa foofa ak ay gàllaaj yooyu takk ak ay karaama wala ay mu'jiza xamal ni doo weesu sa takk deeru tànk ma waxaat ko mu leer wépp askan woo xamee ni jëm ca kanamam wàllu jëm kanamam da koo aj ci ay karaamaa ki xarfa fuufaa gàllaaj yu may takk ak sangu na xam ni du du weesu mukk takk deeru tànkam mbokk yi réalité bii nag dafa mel ni ñun sénégalais yi dañ koo réere waaye ñun africains yi dañ koo réere ñun jàpp nañ ni nit mënta avancer te takkul gàllaaj mbaa mu sangu mbaa mu def yu ni mel jàpp nañ ni it nit mënta nekk nit ku màgg ku rëy lu dul ne dafa feeñal karaama wala dafa def leneen wala mu xotti baax wala mu def leneen ñun loolu lañ gëm ñun gis nga nit lu mu baax baax baax baax ci ñun Afrique ci ñun rawatina senegal li fekk deful karaama boo xam ne loxo day dara géññam te du yóbbaale tim dañ naan moo yi doo nga gis na nga buñ gisoon waa joo xamee ne foo ko gis ci jàkka ji lay jullee julli juróom waa joo xamee ne du wax lu dul dëgg mukk waa joo xam ne dëgg lay wax waa joo xam ne du ger waa joo xamee si ni du sàcc gis na bu ñu gisee kooku dañuy jàpp ne moom moom ñun doo nga yam duñ ko mboole ci nuttu yàlla yi duñ ko mboole ci góor yàlla yi waaye nag bu ñu gisee koo xamee ni osé na taxaw daan man mën naa wax loo garab gi wala ku osé taxaw ne mën naa soppi kayit yi mu nekk xaalis ñu ne ah waajaa ngi kii mooy waaja kii mooy waliyu kaamil mbokk yi ñun noonu lañ mel dañ koo bañ ba gis nga ko commencé avancé tuuti rek boo commencé avancé tuuti di am xaalis wala ngay commencé di mel nenn ni dañ naan la sa waay fan yi kan moo la yor ban looy sangoo looy werd loolu lañ lay wax amul kenn koo xamante si ni tey jàpp nañ ne mën ngaa jékki-jékki am réussite najaax kaamil te koo xarfa foofa maanaam gàllaaj woow wala nga sam xanaa alaysa huwa allahu huwa razaq alaysa allahu huwa razaq xanaa nekkul ne yàlla sunu borom moom mooy wërsëgale lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dindi ci boppu gone gi ne ko xamal ne ay xarfa foofa ak ay karaama loolu du dara mbir yi moom mooy nga bàyyi xel yàlla sa boroom ci lépp looy def loolu mooy mbir yi mbokk yi gis nga pour jox la misaal rek bu fekkoon nga xamee ni ñun africain xar fa fuufa jariñ nañu dara danañ bokk ci nation yi ëpp doole ci ci àddina bi waaye loo ci gis ñun ñooy nation yi gën a dellu gannaaw ci àddina bi jëlal anglais yi jëlal français yi jëlal sinwaa yi jëlal naar yi ñoom ñépp ñooñu gën a développé jëm ca kanam te pourtant ñun jàpp nañ ni fii la karaama ëppee jàpp nañ ni fii la maanaam doo toog weer mukk wala nga toog at te déggoo fi lu dargee ñam ci karaama yoo xam ne dañ koy wax wala naan ay xarfa foofa wala ku def lii am milliard wala ya ilaahi bu fekkee kay loolu am na nañ ko wane sur le terrain kon mbokk yi nañu gëm liggéey waaye nañu gëm xel mi ñu yàlla sunu borom jox xel mi ñu yàlla jox nañ ko exploité te gëm ko te bàyyi caaxaan yi képp koo xamee si ni gëm nga liggéey wàkkirlu ci sa borom jëfandikoo sa xel mi da nga bokk ñi gën a raw waaye boo defut loolu rek jàppal ni yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp mbokk yi jamono jii jëpp dégg ngeen benn waaye bu ñu naan konkande nga xamee ni daanaka moo lëmbe réew mi fu ne nag waaye xare xasee na ko fa ñii sax dem nañ ba mu génnee ñu di ko yuuxu ñii dem nañ ba di ko dóor wala ñu di ko sëllax suuf wala ñu di ko sànni xeer mbokk yi konkande mii di ko dara wallahi deful dara dañ koo tooñ rek problème bi mooy gis nga konkande daa amul bàjjen ci réew mi daa amul bàjjen ci réew mi amul najaay ci réew mi waaye ñaata kunkande ñoo am ci réew mi te jiitu ko fi moom ñaata kunkande kunkande yi bari nañ fi at yi weesu yépp yaa ngi fi dégg ay kunkande kenn waxu leen dara kenn waxu leen dara kenn sëllaxu leen suuf bal dañ leen doon fette suuf ñi nga xam ni ñoo ñëwoon pour rekk recadrer teg leen ci yoon ñooñu lañ doon xas kon kunkande mi nañ ko bàyyi deful dara xam nga kunkande lu mu xamaa dafa xam ne ñun Sénégal suñu mbir yëpp bala ñoo jàpp ne nit ki xam na dara bala ñoo jàpp ne nit ki ku màgg la faw mu wane ni moom mën naa def karaama loolu la Kounkandé xam moo tax mu wax ni moom mën naa def kara karaama comme nañ ko bàyyi Kounkandé yi dafa xam ne ñun sénégalais yi suñu bopp yi ndox bariwu ci lan moo tax ndax jàpp nañ ni ñun bala ñoo mën a am lu ñu dundee lekkeeku lekk ko bala ñoo mën a am wërsëg bala ñoo mën a réussit faaw ñu takk gàllaaj faaw ñu sangoo dara fàtte fa yàlla na loolu la xam loolu la xam moo tax mu exploite mu exploité point faible boobu ci ñun sénégalais yi kon bu ko kenn wax dara moom deful dara day def business am comme tout le monde mbokk yi dégg ngeen fii ku taxaw ne ab yonent la kunkande waxul ne ab yonent la de dañu yàlla may na ko mu war a xar mu mën a xar géej gi waaw nañ toog ba mënu koo xar ñu doog koo sànni xeer ba léegi amagul benn preuve buy wane ni mënu ko te li mu woote amul bàkkaar bu ci nekk mooy lan mën naa xar géej gi ñun xamaguñ ci dara waaye ki woote ni moom ab yonent la nag kooku moom luñ ko war a wax ki taxaw fii wax ne ab sëriñam yàlla la kooku luñ ko war a wax ki taxaw fii wax ne ab sëriñam moo bind yàlla kooku luñ ko war a wax ki wax leneen ak leneen ak leneen kooku luñ ko war a wax bërki démb la am ku yàq fële ak kaabaam bërki démb nangam chaque jour chaque jour nga dégg fi ab sëriñ bu bees boo xamee ni day génn taxaw devant l'écran taxaw ne maanaam man na nangam wala moom mooy diw lan lañ koy wax kon mbokk yi bala ñoo dem ci kunkande moom mooy dernier konkande bi waaye am na yeneen konkande yu weesu gannaaw bala ñoo sànni konkande mu mujj mii nag xeer nañ dem ci konkande yu njëkk ya sànni leen xeer ba ñoom ñu tooy xëpp buñ leen dee saaga ñu saaga leen yéen a xam bu ngeen ñëwee ci konkande gu mujj gii nag bu ngeen leen saaga wala bu ngeen lay sànni xeer kenn du leen wax dara waaye day am yoo xam ne injustice la moom waxu fi lu tax géej gi débordé mbaa garab yi fàq waxu fi dara. ñi ko jiitu ci ay kunkande ñoo gën a garaawle fuuf la muy wax kenn sànniwu leen xeer seulement malheureusement moom dafay amul bàjjan amu fi nijaay kon mbokk yi nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla te delluwaat ci suñu xel mii yàlla jox ñu nañu ragal yàlla te delluwaat ñaq liggéey te bàyyi tappale yi mbokk yi gis nga ay xarfa foofa ak ay karaama ak di ko nettali jëmalewu réew kanam loolu nañ ko xam gis nga xarfa foofa mbaa ay gàllaaj di ko sangoo mbaa nga di ko diwoo wala nettali ay karaama wala wane ay karaama kooku jëmalewul kanam yonent bi ñaata at la dund ñaata mojisa la wane da nga koy da koy wane maanaam da nga koy wàññi mojisa yi mu wane da koy wàññi waaye ñun xataa suñu mag ñu baax ñi sax suñu leen dee waxtaanee il est ñu waxtaanee seen projet yu leer nañ yi ñu fi indi dañ ko fi bàyyi na ñu ko de xam nga lu ñuy waxtaanee moo fi defoon nangam ci ay karaama yoo xam ni mag nga bañ koy def ñoom defuñu ko woon defi maanaam dañoo demoon ba sës te bañ koy def ñoom gëmuñu woon ne lii mën nañ ko de yàlla suñu borom moo leen wàllu terale leen ko loolu dafa war a leer gis na lii di ajise ak karaama. amul benn yonent boo xam ni mën naa defal mojisa boppam déedéet amul benn wàlliyu boo xamee ni mën naa defal karama boppam déedéet xamu ko woon sax ne man na ko jaamuwuñ yàlla yépp ñoom wàlliyu yi pour mën a def karaama ñoom yonent yi jaamuwuñ yàlla pour mën a def ay mojisa yàlla yónniwu leen fi pour ñoom ñu def ay mojisa déedéet yàlla da leen fa yónni ngir lan bashiran wa naziran wàll yi dañoo ñëw pour yeesal li nga xam ni moom la fi yonent yi andi woon kon mbokk yi nañu bàyyi caaxaan yi karaama du dara mujiza du dara lan mooy dara mooy jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala te teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lii moo tax yàlla sàkku kon nañu bàyyi sukkandiku ci ay gàllaaje ki xarfafu fa ak ay karaama ndax amul njariñ wépp askan woo xam ne jàpp na ni lay tax mu dem kanam ci ay gàllaaj la koy wékk wala ci ay karaama mbaa mu koy nettali na xam ñu du weesu takk ndeeru tànkam maa la ko wax man jàppal loolu képp koo xamee ni it jàpp nga ni gàllaajay tax nga am xaalis wala gàllaajay tax nga réussite wala nettali ay karaama moo tax maanaam ñi def ay karaama moo tax ñu ne diw ku mag la wala diw ku màgg la yow xamal ni sa bopp bi ndox amu ci ni ko Konkande waxee nee na natt naa sénégalais yi daal ba xam ne dëgg-dëgg boroomi xel nekku fi <laughs> wax na dëgg wallaay wax na dëgg waaye Kunkande dañ lay wax ni Sénégal am na boroomi xel xam nga lan mooy problème bi dañoo am ñoo xamee ni ay iblis yu ndaw lañ mooy média yi gis nga média yi ñooy jël loo xamante ni lu ñàkk fayda la daal di koy teg ci kanamu écran yi ba ñëpp di ko waxant Kunkande ngi bu fekkoon la mu wax ba mu ko waxee fa mu ko waxee foofa lañ ca yam mu yam ci réseaux sociaux yi wala ya ci aju amul benn télévision bu ko bu ko bu ko introsé amul it benn émission bu mag yu am solo yi ñuy wax ci lañ bokk maanaam revue de titre yi yëpp du fi am kon bu boobaa naka lay siiwee waaye gis nga ko télévision yi gën a mag ci réew mi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko invité maanaam lu tolloog ñaari waxtu dëkk ko ay micro muy wax. kii kay sa waay kii bu xarul géej gi sax moom wàcc na man Kunkande fi mu toll ku koy wax dara sax man danga may jaaxal yow waroo waruñoo wax dara Kunkande moom deful dara ci business am la nekk xam nga ñan ñoo def dara mooy ñi ko dépp dëkk ay micro muy wax télévision yi nga xamee ni ñoom amuñu programme amuñu dara askan waa ngi nii di waaja a deewaku mbënd di waaj a deewaku xiif ñu war a def ay reportage daara yaa ngi nii di def ay résultat te kenn jàppalewu leen ñu war cee def ay reportage loolu li fi nekk ni këtt ne jonn ñu war cee def ay kii mbindu maa ngi nii élection yi ñu war a ñaax askan wi sensibiliser leen ba ñu mën a dem bind ji defuñu ko xanaa nekk ci ay kunkande dana xar géej géej du xar géej waaye kunkande yaay yaay yow kenn waru laa wax dara bravo nii la rek yow continuer ci nii rek incha allah dana baax mbokk yi ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax bu fekkee am na lu ci dëng ñu ngi jéggalu dañoo ñëwoon rek pour wax suñu xalaat wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah shukran lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon